ndamal Liverpool bi ci championnat bi ñu naan safut xorom saf sapp xorom la def ndam dëgg la ndax rek du fanweeri at yi nga xam ne jeexal nañ ko ca gañewuñ championnat bi waaye ki ñu daan la mbër mi nga xam ni mënees na koo tudde lu ne ba mu des club bu football muy Manchester City club boo xamante ne ni ay arrière latéraux cent vingt cinq la yor mën a teg ci banc bi Riyad Mahrez soixante quinze millions d'euros Sané ak Gabriel Jesus ku nekk trente cinq millions d'euros ak Bernardo Silva cinquante quatre millions d'euros Liverpool ca booba taan ak ñoom am ku remplacer bu baax a baax Salah wala Mané wala Firmino sax jafe na leen ñooñu nga rawe leen ci championnat loo xam ne kenn musu koo rawe ki jël deuxième ba Prince d'Abu Dhabi jotee ci club bi ba léegi ci la lixoor tàmbali ndax xam nga ne nag Amnesty International boo demee ba doon club bu football mu lay joxar baaraam mbir xew na ñuy xaarandi verdict tribunal arbitral du sport ba xam lu muy wax ci fair play financier bi te xaalis bi ñuy def kon boog ngir ñi bëgg pomi ndax li mu doonoon ci bi liw bi ngelaw a am doole ba mel nii rek danañ jàpp ca joueur koo xamante ne lépp moom lañ koy yan waaye bi la bi lépp daanaka moo ko tëggal boppam ndax moom moo mën a jër xànjar soppi ko wurus journaliste Italie bu xarañ bu tudd Gabriel Marcotti nettali na ci lu bëri xoolal ku mel ni Trent Alexander Arnold fukki at juróom-ñaar la amoon bi mu koy xam mooy léegi latéral droit bi gën a xarañ ci àddina Andy Robertson dañ ko relégué woon mu wàcc deuxième division ni amul doon doog dugg équipe nationale u Brésil Sadio Mané ñaar fukki but ak benn ci ñaari saison ak Southampton Oxlade Chamberlain juróom benn at ci Arsenal vingt pour cent de titularisation Van Dijk fukki sélection ak juróom-benn rek la amoon ak Hollande te ma nga ca booba ñaar fukki at ak juróom-benn Alisson Becker doon doog a rëcc ci keppaaru Szczesny ca championnat u Italie doon doog ñam itam saison bu njëkk ci Europe capitaine bi Jordan Henderson moom dem ba xam ni bu weddiwul ni moom mii kat du ak lajj nit ñi danañu ko ko jàpp ñii de la dajale fexe ba def leen li ñu doon tey ku ci nekk sa njëg yokk ba jéggi dayo nga doon star ci àddina bi yépp xoolal ñu ko wan ginnaaw ana Coutinho moo Götze ak Shinji Kagawa ak Nuri Sahin Mkhitaryan daanaka ñoo yem bi ñu wanee gannaaw club mariix lañ def am na nag ñu tàggook moom ba léegi doon ay joueurs yu mag ku ci mel ni Lewandowski ca Bayern club ba léegi Guardiola moo ko ëpp valeur bu ñu leen doon jaay waaye mel ni moom képp moo man ci moom loo xam ne fu mu ko fekk wàcce ko muy ca Bundesliga ba di ci première ligue bi te bu ci ne Guardiola ba léegi moo koy ëpp xaalis la mu yor waaw ku man lii yëpp nag ñu naan dafa baax ak day foon joueur yeeg day nangamtaan moo tax muy am résultat da nga koy saaga xam-xam dëgg la am mooy entraîneur bi ëpp lu mu dóor Guardiola bi Guardiola ñëwee indi xeetu football woowu nga xam ne passanteem di leen xaar di leen contre attaqué ba seen pressing boobu nga xam ni dañ lay xoj di la dàq foo toll mooy li ma leen fi waxoon bis ni nee na moom du jël ndox di ko faye sawara sawara wu gën a tàng yu nga yor lay indi xëpp la ko tey jii nag Jürgen Klopp moomu nag ci ay pexem moo gañe ndam lu amul benn sikki sàkka te tegul woon ci loterie